salaamaaleykum salaamaaleykum ma leen di ziar bu baax a baax a baax xaar tuuti rekk gaa yi teewlu ñu tàmbali waxtaan bi ñoo leen di ziyaar bu baax ñoo leen di ziyaar bu baax a baax je ne pas ndax son bi baax na am càmmen bi maa ngi leen di ziar <laughs> sëriñ saaliw borom badar maa ngi lay ziar bu baax a baax waa kon mel ne ne xam naa am na ñu teewlu xam naa ma mën a tàmbali waxtaan bi mbakk bàlla ñoo ngi ziar bu baax ñoo ngi ziar bàlla yi sax salaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di ziar bu baax a baax a baax xam naa ne gën naa def vidéo de la léegi xamatuma sax nu ñuy defee vidéo man li ma waxoon rek dama ne lu laalati Touba wala yoonu murit rek moo may tax a génn def vidéo bu dul loolu je pense que démissionné naa ci yu bëree bëree bëri moo xam wàllu saayir daal wàllu politique ak yu mu àndal yooyu moom lii de sama àddina fas yéeneetuma ci waxati waaye fi nga xam ne foofu laa bokk nag te yaakaar fa àddina ak àllaaxira foofa moom lu ko laal lu ne dinañ ma dégg incha rab ci bu ma ko jot bi mayee xam naa ne jaayante naa ko ak Serigne Touba te yàlla na ma ko nangul kon maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar. dafa mel ne nag ñoo ko yëgandoo mbiru Pape Bouba jàlloo policier bi nga xam ne ràjjee nañ ko parce que tout simplement dafa warmal sëtu Serigne Touba mu mel ne loolu du fi du fi gan du ñu ne guléet du fi gan lu fi yàgg la. te lu ñu miin la bu baax a baax a baax waaye mu mel ne euh, àddina day dox ñu yaakaar ne yoonu morit mi ngi mi ngi wone jéego yu yu am solo yoo xam ne nii dina tax ñu bëree bari xoolaat yoonu murit ci beneen yéene bu rafet ci xoolin bu rafet waaye dafa mel ne rek li li daan laal yoonu murit démb ak bërki démb ba nga xam ne dañ daan taasu ak di woy naan jur morit ak ak ak nañ ko daan waxatee cubba nuñ daan waxatee loolu jur murit mook jur mbër ñoo yem képp waaw bu ñu daan buñ daan minimiser murit yi loolu lañ leen daan wax jur murit mook jur mbër ñoo yam képp waaye nag yàlla di dox jamono di dox jamono di dox yàlla di ànd ak ñun murit yi ba nga xam ne tey kenn ku ci nekk ñaan nga yàlla jur murit kenn ku ne ñaan nga yàlla murit yeewoo sa biir kër ndax lan mooy murit morit mooy ki nga xam ne nii dafa nam ma dem ci boromam dafa nam ma liggéeyal yàlla kooku de mooy murid te koo xam ne loo am yéene na kook yow yéene na la ko te moom lu mu am bokk kook yow loolu de mooy murid murid mooy lan murid mooy ki nga xam ne dafa kennal yàlla nangul ko kenn gi mu doon nangul Seyduna Muhammad ki mu doon di julli ci alay salaam waaye yëkkati sëriñ Touba ndax sëriñ Touba moo ñu nambatal nampatal ci ñu xam ne yàlla benn buur la moo ñu nàmpatal ci ñu xam ne yonent bi amul morom waaw sëriñ Touba mooma la ko sama borom jaral ñu de loolu rekk lañu ko toppee du leneen yërmande gi mu am ci jaam yi moom lañu ko toppee du leneen lan mooy problème bi lan moo waral bu ñee murit àddina bi tukki lan moo waral ñu sonal murid yi Sénégal dafa mel ne benn tarixa moo fi am mooy murid guddeeg bëccëg subaa ngoon ñi ngi leen di wutal lu bon lu ñu teg ci seen dell gis nga bi fi feebar bi ñëwee di coronavirus lu ne dégg nañ ko ci àddina lu ne dégg nañ ko ci àddina tuddee nañ ko Wuhan tuddee nañ ko lu ne am na ñoo xam ne ñan nañu yàlla sax fi mu ne Covid bi euh, rey lu dul jeex ngir rek ñu am dëgg ne Touba la jóge Touba ko fi indi Sambata Ndiaye Birane Diop mooy lan moo xew lan moo fi ñor bañ koy macc lan moo fi ñor bañ koy macc ah lan moo xew murit mooy lan jullitu yàlla waaw réew mu toll ne Sénégal ate yi am nañ fa place waaw kon xanaa murit yi war nañ faa mën a am place donte ñun benn pour cent lañu xanaa am nañu droit exercer li ñu bëgg xam nga lan la ñu bëgg ñun murit xam nga lu mu bëgg jaamu yàlla fonk Seyduna Muhammad respecté tarixa yëpp wormaal doomu aadama yëpp di liggéey di yóbbul sëriñam waa lii ban ngaañ moo ci am lan moo ci ne ñun kan lañu sonal du duñu gaaruwaale xeexuñu xuloowuñu li ñu am ñun ñoo ko liggéey lew nañu sàccuñu ko wurujuñ ko bu ñu ko liggéeyee ba mu dagal ñu dañ koy xaaj mbaa ñu jël lépp yóbbul sëriñ bi waa lii lu ci yoonu nit ana lu ci nit man ba tax képp koo xam ne waruñu maal nga njabootu sëriñ tubaa rek ñu ne la loolu du fi amee faw sanction dal sa kaw waa léegi man li war a tax ma def vidéo bi xam nga mooy lan damay ñaan képp kuy taalibi sëriñ tubaa te yàlla muur la mbalaanum sutura nga jóg ñu taxawu mbokk taalibe bi nañ ko jàpp di ko teral di ko tëral di ko tëral di ko teral ba ay mbokkam sax xaj ci teraanga ji nañ ko teral ba mu gën maanaam fa mu toll moom ba sukkal ko sant Mbàkke bu ñu jógee bu ñu paree ci moom yal na tolluwaat fu ko kawe foo xam ne boo ko neetee sax Sëñ Tuubaa amul moroom dala naan laaj ma keroog ba ma sukkalee Cheikh Modou Kara ñoo ràjjee ma fii la ma murid yi fekk fii lañ ma jëlee fii lañ ma yóbbu waaw loolu de lay ñaan waaw loolu daal lay ñaan sëñ man maa ngi lay siyaar Thiam ñun nañu jóg taxawu ko nañu def suñu je man xaw ma lan la ñu mën a teg euh, xaw ma orange monem la ñuy jël xawma ma lan la ñuy jël man je ne waaye nañu jóg fas yéene koo taxawu te ñi nga xam ne nii ndax <laughs> yàlla nag fay na sëñ Touba milliardaires yi Sénégal ñëpp Mbàkke la ñuy wuyoo nañu jóg. fas yéene ko wutal liggéey boo xam ne nii xam nga ku nekk xam nga ne Sénégal sax moom salaire policier daanaka moom amul solo waaye lañ ko jël yóbbu ko foo xam ne nañ ko embauché jox ko liggéey jox ko kër jox ko daamar bu mu war ndax suñ Tuubaa am na lu ko dégg naa Abdoulaye Diouf sànq di ko wax buur siin ku mëndoo fen dafa taxaw seedeel Sëriñ Tuubaa seede boo xam ne nii boo dee sëtu buur siin sax léegi dañ lay teg ci kaw ndax sa maam dafa jël manto ba jaay yëkkati sëñ Touba ci kaw sëñ Touba ne ko yàgg sa jonjong yi ba biir àjjana te sëñ Touba da ko ko gaar da ko ko garanti moom ak ay sëtam kon nag ñun nañu góor góorloo góor góorlu góor góorlu ba nga xam ni baatin bi nañ ko bàyyi ak sëriñ bi waaye saaya si ñun taalibe ñoo ko yor nañ ko yëkkati ca kaw nañ ko aj ajal ca kaw nañ ko taxaw nañ ko tette nañ ko suturaal nañ ko muur mbalaanum suturam Serigne Touba ba du xiif du mar du rafle au contraire da doon yàkkamti ñu jële ko fii ñu ko jële moom bu fekkee ne képp ko yow ñun ñooy dem safara du ñun la ñuy lakk ñun bëgg nañu nañu brochette bëgg nañu ñun Sëñ Tuubaa la ñu bëgg ñu ne duñ ko may loolu duñ ñu ko may ñun ñun daal moo dof bëgg nañu ñun ñoo dof bëgg nañu waaye ñun la lakk suba d'accord nañu ñu brochette kan mooy yéeg safara si du ñun ñun la lakk waa loolu neex na bàyyi leen ñu ak suñu safara waa bàyyi leen ñu ak suñu dof ñun ñooy raam nous sommes des reptiles ñun la gaaruwaale ci télé yi ñun la gaaruwaale ci rajo yi ku def sa bâche ñaareel ñett yaa nga gaaruwaale muridi waa dof yi baax na ay ñun sunu lu ñu kenn lu neex waay na ko wax lu neex waay na ko gëm lu neex bàyyi leen ñu ak sëriñ Touba sëriñ Touba moo taxaw kennal sama borom l'islam yëkkati l'islam yëkkati Seyduna Muhammad diineem ji tax na mu julli ci biir géej gi tax ñu dugal ko ci fuur boo xam ne nii dañ fa daaj ay ponto euh, tax na ñu dugal ko ci kan moo xam ne dañ faa taal ay sebb maanaam luy lakk waaw ñun bëgg nañu yéen jàpp leen ba tey ne sëñ Tuuba kennal googu mu kennal yàlla sama borom moom la ko yàlla fay ci ñun ni ñu ko bëggee ñun ni ñu bëggee sëñ Tuuba dafa jaaxal doomu aadama yi pourtant c'est pas du miracle quoi fayu sama borom la yàlla dafa mën a fay sëñ Tuuba moo kennal yàlla yàlla jaral ko lu ne ci àddina yàlla jaral ko juróom-ñaari at mu génn ko Sénégal gisul njaboot gisul doom gisul dara di wéetal yàlla mais yàlla moo ko fay au lieu ngeen nag moom gëm yàlla gi daal moom nangul sañ Tuubaa bokk ci ah bu njëkkoon murit bu jébbaloo dañ koy dóor dañ koy mettre en quarantaine dañ koy fi mu ne bëri na ci ñoo xam ne quatre-vingt-six pour ci murit yi dañ la naan bi ma jébbaloo dégg naa lii def nañ ma lii def nañ ma laa kon ba léegi seen yàlla gi ak jullit gi yëpp moom nangul sëñ Tuubaa li ko yàlla fay moom moom bokk ci moom daal jullit gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mënuñoo nangul sëñ Tuubaa moom ne yàlla moo ko kenn waaye lii lu mu doon waaye lii lan la moom waa lii moom du ngeen ci wax ay jullit lañu quatre-vingt-dix-neuf pour cent xawma de musulmans je ne sais pas waaye daal jullit gi yëpp moom nangul sëñ Tuubaa li ko yàlla may moom bokk ci foo dugg nag fekk ko fa fekk fa koo xam ne nii moom bëggul lu dul musiba rek dal ci kaw ab murit moo lii lan la ab nit bu jóg sargal kilifa diine warmal ko lan moo ci ne mm, bi sëñ Murtala di nekk ci kaw suuf yàlla nañu ko yàlla fayal meeru Marseille yëkkati na paraplume tëyal ko sëñ Murtala jàmbaaru sëriñ Touba bu doon senegaal ñu wax lu rëy policier americain yi raamal nañu Cheikh Béthio Thioune dañuy raamal sëñ Mamour Murtala armée française raamal nañu euh, Cheikh Sidi Mokhtar yal nañu ko yàlla fayal ah Macky Sall ba ma xàmmee ràññee xam nga kañ la noppee raamal waa Touba keroog bi mu nekkee président waaye ba mu nekkul président Macky Sall maag moom a yemoon danaan raamal Touba Touba moom ku bëgg dara faw nga dem raam fa boo amee li ngay wut nag après yaa xam après nooy doxale mais président <laughs> li ma xam yëpp bëgguma ko wax ah président day summi dàll di raam hmm? président keroog deuxième tour bi mu mettee Touba la daw ci sëriñ Baara Falilu yéen bu leen ñu waxloo réew mi ku fi bëgg dara faw nga am noo defanteeg waa Touba may leen ñu jàmm te may leen ñu salaam te taalibi sëriñ Touba yi ngeen bàyyi leen ak sëriñ Touba. boo lëgee bu ñu yóbboo safara baax na yàlla ñu ngi koy raamal juróomi yoon ci bis bi ñun dinañ julli fajar ñun dinañ julli tisbaar dinañ julli tàkkusaan dinañ julli timis dinañ julli gee bu ñuy julli dañuy raam waxuma la raam sax waaye eh, lu raw raam sax dañ koy def te mënoo julli te doo julli ci alayhi salawaatu lillahi dañuy julli ci sangam sang yi ñun dañuy juri doom di tuddee Seydina Muhammad ñun dañuy daw safa dañuy daw marwa waaye yéen luy seen problème yàlla teg nañ ko fañ ko war a teg rasulilaay teg nañ ko fañ ko war a teg waaye sëriñ Tuubaa dinañ ko kenn ndax yàlla ko kenn léegi nag roowu doomu aadama yi biñ ko jógee ba alayhi salaam tànn ci ñu war a doon jullit ba pare sëñ Bamba moom ñëw tànn ci ñu war a doon murit ñooñu faw ñu mel nii ñu mel jiitu na suñu judd jiitu na aadama ak doom kenn mënu ci ñaar dër mu mali ku yàlla euh, dimbale nag ba nga xam ne bokkoo ci ñiy raam waaye yow santal yàlla mais bàyyi ñu ñun ñi nga xam ne raam bi moo ñu gënal on a été taxé de reptile ah sovage sauvages lu ne dégg nañ ko euh, sëñ Bass Abdou Khadre barki Dembo Ndiaye policier bi ko raamal gis nga ko xaw ma fu ñu mujjee moom mais am nay problème moom daal mbàkke gi ku leen raamal rek am problème te lii dal ci yoonu murid di dal ci benn tarixa ñoom daal murid yi la ñu mënta supporter waaye lii lan la fii lan moo fi ñor bañ koy maj yàlla dafa jël ban sàkk ci maam aadama def ko muy doomu aadama bi moom nopp ami bët def ko ne ñun ci lañ ci moom lañ jóge daane ibnaliisa iblis na ko sujjóota iblis bañ yàlla toroxal iblis génne ko àjjana kon xam nga ne iblis lii ko dal yépp ñàkk sujjóot moo ko waral waaye ñun d'accord nañu ne dañuy sujjóot ñun ñun nangul nañu ñëpp waa duñu bàyyi fii lan moo fi ñaar bañ koy macc nañu bàyyi nañu bàyyi ak sëñ Tuubaa bëgg nañu bu lëggee nu mu fa demee bu ñuy brochette bu ñuy mbaxal bu ñuy lu nu mu fa demee baax na ñu bëgg nañu nañu bàyyi ak sëriñ Tuubaa sonaluñu kenn xataluñu kenn gaaruwaale wuñu kenn nañu bàyyi li wajjilaahi karim ak sëriñ Tuubaa doonte ay sénégalais lañu donte am nañu benn benn sax benn benn légitimité bu ndaw boo xam ne def nañu ay sénégalais wàjji jile nañ ñu bàyyi may ñu jàmm ak salaam am déet bëgg nañu ku xam sëriñ Fallu Mbakke ni mu meloon ci lislaam ku xamoon sëriñ Abdu Xaadir ni mu meloon ci lislaam ku xamoon meloon ci lislaam ku xamoon sama sang bi sëriñ Saaliw Mbakke ni mu mel meloon ko ci lislaam ngeen yaakaar ne dangeen ñoo gën a jullite ndax ngeen seen bopp dafa di nangu jël na cëru bañ Sëñ Tuubaa nangul yàlla sama boroom lu ko kenn mës sa nangul ñii ngi ñëw nangul Sëriñ Tuubaa loo xam ne doo ko gis fenn li dong la du leneen de lu waay am yéene nañ la ko lu waay am bàyyi nañ ko yéen waaye nañu bàyyeeg Sëriñ Tuubaa ma ñëwaat waxaat xam naa damay pare léegi dem liggéey euh, Pape Bouba Diallo taalibe Serigne Touba yi am ay société nañ jóg embauché ko jox ko salaire bu doy nañ ko yëkkati ca kaw bu mu namm dara bu mu bu mu bu mu bu mu rëccu benn yoon jëfam ji waaw nañ ko taxaw nañ ko yónnee million nañ ko yónnee koppar nañ ko yónnee lu ne sëriñ Touba ku daw làqatu ci moom mu boot la rogganti la sëñ Touba du bëccëngal kenn te ñun dey amuñu ko doo sëriñ Touba mu ñu gën a luñ mën a am mu ñu gën a luñu mën a am bu ñu toogee di déglu la ñuy nettali ci sëñ Mbay Saar di ko nettali ci Cheikh Balla Faali Dieng di ko nettali ci euh, sëriñ aadama géy di ko nettali ci sëriñ daaru Assane Ndiaye ñu di leen ñee naan cey bu ma ko fekke woon cey bu ma ko fekke woon sëñ Touba du fi jóg ndax njabootam gi duñ fi jóg kenn ku ne ak la yàlla booleel nga liggéey sëriñ Touba ca moom ñi ànd ak Cheikh Modou Kara ko njal Cheikh Modou leen doy ñii ànd ak waa Daaru Musi Cerno leen doy ñii ànd ak waa Daaru Salaam Sidi Gaawaan na leen doy maa ngi fay taxaw di siyaara waale waa Daaru Salaam ndax démb dañoo def jëf ju rëy deux cent trente et million millions ci conjoncture bu métti bi ci réew mu sooxe mii àddina bi yëngatu nga xam ne euh, gouvernement Sénégal sax amatul xaalis ñu yëkkatee plus de deux cent trente millions joxe ko addiya Sëriñ Tuubaa waaye ñun foofu rek la ñu mëne jëf ju rëy bala yi sa buri sëñ Mbàkke maadam jëf ju rëy joxe lu rëy boole kook nag yëkkati boitu almet teg ci ne mbàkke bu la neexee taalal millions yi lew na la doom waaye yow lii nag nañ waxante dëgg lii ku ko am lii kan moo ko am kan moo ko mës a dégg sëñ Tuubaa rekk mës a am lii demal asi demal fu la neex demal Europe demal États-Unis lii sëriñ Tuubaa lii yàlla fayee sëriñ Tuubaa kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis kon nag nañu bàyyi ak sëriñ Tuubaa ñu ngi wëlbatiku di baalu àq ñëpp di tuubal gi waaye li gënoon tax daal ma def vidéo bu mooy mbokk taalibe boobu ñoo ràjjee toroxal ko ngir dafa war wormal ko sant Mbàkke ñun nañu ko nañ jóg taxaw ko ca kaw ca kaw waaw nañu ko nañ ko nañ ko aj ca kaw nañ ko boot nañ ko roggante ba nga xam ne du namm dara waaw ñi nga xam ne def nañu loolu ah bu fekkee ne mën nañu deltu ginnaaw nañu deltu ginnaaw bu fekkee mënuñu ko ñun de murid yi ñun daal la war suñu digg ak suñu mbokku taalibe mooy taxawu ko ba du xiif ba du mar nañ ko yónnee millions yu doy ñu waaw nañ nañ ko nañ ko embauché dugal ko ci place yu mucc ayib wutal koy daamal muy muy dawal waaw yor ko yore njabootam li ñu koy defal daal moom loola na sakkan ci moom ba ay mbokkam ak i xaritam ak i soppam xaj ci bi jaay nabil Mustafa alayhi nous sommes des reptiles alhamdulilah waaye ramons dans la joie ah ñu leen di bu baax di leen balu àq di leen bal àq bu baax a baax euh, bu fekkee ne wax nañu dara loo xam ne rek euh, jéggi na dayoo ñu ngi koy tuub bu baax a baax euh, jubluwuñ ko ci benn yoon di leen ñaanal jàmm ak sutura suñu boroom yokk seen fan yokk seen wér gi yaram suñu borom aar la bala maa ngi lay siyaar maa ngi ngi leen di balu àq bu baax jërë ngeen jëfati